أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى mbokk yi seetaan seen TV fu ngeen mënti toll ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo leen di gërëm di leen sant dellu si nañu di leen dégtal pour ngeen seetaan ñu ci suñu émission bu ñu tuddee à nuur su ngeen déggee à nuur ñu tuddee commission bi mooy leer leer googu la ñu bëgg moo àgg ci njaboot gi àgg ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi defar seen wàllu économie defar seen wàllu social defar seen wàllu lépp maanaam pénc mi ak seen yaxanal ak seen wàllu culture tey ñu am mbégte bu rey dañu sees ki nga xam ne mbokk yi su ngeen may seetaan ci télé yi di ma déglu ci rajo yi xam-xam boobu ma yor moo ko def sama bopp moom laa sees si tey kon dama kontaan maa ngi ak sama sëriñ suma oustaz suma jarbaatu papa ba pare mu nekkaat sama papa loolu lañu ma wax ci wàllu mbokk mi tey ñu seetsi ko fii parcelle mu di a Cheikh Alhaaj Ousmane Diouf dinay waxtaan ak moom ci wàllu jaar-jaaram ci wàllu xam-xam fan la tibbee xam-xamam mu jógee ci wutum xam boobu daañu ko laaj yan sëriñ ñoo ko jox xam bi ba mu fa tukkee lan la continuer di def ak fi mu toll nii ci lan la nekk waxtaane démb daal daara waxtaane yaru mag ñi démb ca daara ndax loolu moom moo ñu mën a yar yar njaboot gi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 الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم э, jazakallah xayran yaa Ousmane moom moomu nga xam ne moo ñu jàngal ayat yooyu minu suurati rahmaan yàlla ko yàlla fayal ci yar gi ak ci njàng moom nga xam ne neex na te aw na yoon mbokk yi comme ni ñu ko waxee ñu ngi jàkkaarloog suñu sëriñ suñu papa la suñu jarbaatu papa la ñëw seet si ko fii pour mu waxtaan ak ñun démb daara ak jaar-jaaram ndax ñu man cee jële yar laaj bi ñu koy njëkk laaj ginnaaw bi nga xam ne nuyoo mbokk yi koy setaan oustaz nuyul ma mbokk yi ñuy setaan ba pare ma laaj la laaj yi ma la laaj lan ngay nuyoo ñi nga xam ñoo ñuy setaan bismillah salaamu aleykum <laughs> mu ngeen nuyu di leen ziyaara di am mbégte ci seen teewaay bi ngeen fi teew di sant waa jàkk ji ak mbool mi fi teew yëpp ak jigéen ñi nga xam ne bàyyi nañu seen soxla yépp ñëw teew fi nu ngi nuyu ñépp di leen sant di ñaan yi yal yàlla fay leen yiw jërëjëf waaw loolu ñu ngi koy gërëm mbokk yi mu nuyu laaj bi ma leen njëkk laaj ndax mënoon nañu xam fan nga gane àdduna ak ban yar lañu la njëkk a defal foofu nga xam ne moom nga gane àdduna balaa ngay dem daara maa ngi gane àdduna Sébikotane mm-hmm. ci kër gu ñuy wax Tiwaawoon dañu duppee tur wi ci Tiwaawoonu maam Alhaaji Maalik radiyallahu anhu ma demee ba mën a xàmmee gis daara joo xam ne moom laa fa fekk ci biir kër ci biir kër gi waa dëkk ba di fi jàng ak dëkk yi nga xam ni moo wër Sébikotane ñu andi seen doom joxeleen leen fa ñu nekk fa di jàng sam nekk ilimaanu dëkk ba yore jàkka ja jarbaatam di Biraan Juuf moo xalifa mi teew kooku moo yore woon daara ja mu nekk daar joo xam ne du yàgg la mu yàgg la am na ay borom xam-xam yu bari yu yu fa génnee foofu daal la gane si àdduna ki nekk koo xam ne kii it dañu maa yar ci biir kër ga bi ma laata genn bi ma waree dugg ci daara ji ñu duggal ma bi ma waree jàng liggéey ñu yar ma ci war a liggéeyi di ànd ak mag ñi di dem ci tool yi mm-hmm. ñu may jàngal nan laa war a liggéeyee mm-hmm. jërëjëf loolu dinañ ko doyloo ci sa mm. jaar-jaar. waaw euh, li ma lay laajaat kom dëkku séeréer la boo ne Sébikotane. waaw euh, est-ce que jàngu arxuraan jafewul woon ci jamono jooju. wala dafa am ñu doon euh, am rek sañ-sañu def ko wala amul yenn ay gàllankoor yi daan am ci jamono jooju jàngu arxuraan. ci boobu jamono. sam papa dafa nekkoon koo xam ne ku dogu la. Mm-hmm. dafa demoon ci góor gu ñu wax tafsir Mor Fay bu rewoon daar ci pour foofu la laxasoon doon fa jàng fala la jànge jànge fa ay risaal ak téere yooyu yëpp fa la ko jànge euh, te mu nekk koo xam ne kii it waa dëkk ba déggaloon nañu ko masuñu koo xame ci caaxaan lu mu leen woo rekk ñu dal di ca ànd moo tax ñoom ñëpp ñu fab seen doom yi andi ci kër gi pour ñu jàng alquran booba nag papi xalifa moo yore daara ji waaye taxu ko doon mag lool ndax booba dencagul sama yaay boot taalu bi yëpp moo leen di toggal moo leen di footal moo leen di defal lépp te bari woon nañu fa tabaarakallah insha allah falaa tàmmi wàlli dëkk ak njaboot ci biir kër ba nga xam ne bu ma amul lu mel noonu rek dafay nekk wéetaay ci man noonu laa doon foofa ñu fab ma nag dugal ma ci daara Serigne Birane Diouf may jàng sama doomu bàjjen la waaye it mu yéene ma xam-xamam di ma jàngal di ma yar ba sama moroom yi ca dëkk ba am na ñoo xam ni bu ñu masaan gis ma ànd ak ñoom dañu may woo <clears throat> ne sant ñu la nga ànd ak kenn jàng rek lañu la sant loolu it ci laa yaroo ba ñu bari ci Sébikotane mënuñu ma woon xam ndax aw ma jot jërëjëf jàng loolu ñu ngi la ciy gërëm parce que daañu xam waaw ci kanam lu tax ñu téewoon la noonu njëriñ boobu dina ko gis ci kanam wallaahi euh, dinañ doy tontu yooyu parce que li taxoon mm-hmm. li sa ñu doon def yëpp daa ñu wax ne buum bi ngay yeewee say morom doo ko rawee seen biir. wallaahi jàngal nga ñu ko. wallaahi lii dañu la cee yar. wallaahi léegi ñu bàyyi noonu yaa ngi tudd xalifa toujours xalifa jàpp naa ne dina bokk ci ñi may jël ci biir émission bi. waaw defar ma seede ci wàllu daara ja. parce que ñoo fa nekkoon suñu magu daara ñoo mortali suñu jàng. waaw ñu ngi ci euh, waxtaan a ngeen mbokk yi yar gi ci njaboot gi naka loon kon gis ngeen ki toog suñu kanam. ñu mm-hmm. koy yar ba mu toog tey mu jàngal ma ba ma toog ci télé yi di wax. Mm-hmm. l'islam rek la. Mm-hmm. nga jóge foofu mel ni danga jóge sa kër wuy jur nga wuti xam-xam après fan nga laxas dem wuti xam-xam waaw kay jërëjëf foofa laa jànge ca kër ga ba wàcc alquran sëriñ bi commenceel ma téere bi ñu wax laxdar yi suñu kër laa ko jànge ndax maa ngi dugg ci wàll xam-xam léegi asmaa yu fa laa ko jànge ak muqaddimatu iziya noonu nag ma def na jéem ci mag ñi niñ daan def pour génn waxuma la génn kër gi waaye génn dëkk bi wala génn raison bi yépp mën naa dem fu sori foo xam ne fii danaa fa mën a defe sama jàng ñu dégg nag benn góor gu baax ku ñu wax alaaji Tayib Jàllo mu dëkk Sookoon ñu ne moom borom xam-xam la te njàngalem leer na ku mu jàngal boo góor góorloo yàlla mën na laa jox xam-xam ca laa laxase nag dem fa ànd ak ku ñu wax Ismaïla bu dëkk Sébi Xutaan bi nu demee it talaata ci guddi laa fa yegg ñu yóbbu ma ci sëriñ bi léegi oustaz dina ñëw lool dama lay laaj wan nga ñu da jóge kër ga laxasi dem Saalum waaw dem Sokone waaw pour wuti xam-xam. diggante Sébikotane ak Sokone. sori na. wallaay dafa mel ni da nga doon tumuranke ji. waaw bàyyi woy jur yi bàyyi kër yi. booba yaa ngi nekk sa ndaw di wuti xam-xam léegi dund boobu nga dund ak Sokone léegi dañoo bëgg nga jox ci tuuti. moom moomu fan la tibbee xam-xamam lan nga xam ci moom fan la jóge alxaaji Tayib Diallo mm-hmm. moo ngi juddoo dëkk bu ñuy wax baam bu gaar mm-hmm. doomu kilifa bu mag la woon ku ñu daan wax Mouhamadou Diallo. Mouhamadou Diallo boobu it Ibrahima Diallo moo ko jur dëkkoon Gàmbi ñu ne kilifa yu mag di nekk nekk ñoo xam ne ñu ñu ràññee lañu ci wàlli xam-xam ak wàlli sellal alaaji tayib nag bi mu juddoo foofu bambu gaar moom mille neuf la juddu mhm. baayam gaañu quinze benn nijaayam moo ko andi sookoon di ko jàngal alquran ba mu war a commencé xam-xam ñu commencé di ko jàngal doon na jàng temps yooya téere yu ndaw yi mu doon jàng ci ñoom alaaji ahmadu dem mhm. yàlla dogal nag ñu gis ne daal xel mi ñëw na ci njàng lool mhm. góor gu ñuy wax Tijaan Caam ne ko yow daal danga war a dem ndar jàngi ndax gis nañu ne sa xel neex na te jàngale ya bari na foofa boo dem foofu mën nga fa tànn njàng mu la neex mhm. ca la jóge nag ñëw jaari ci sëñ Babacar si Tiwaawan mhm. mu tee ko fa ab diir ñaanal ko door koo yebal ndar ba mu demee ndar ñamu fa fekk ñamu fa nekk loon mooy laaj Abdul Aziz radiyallahu an fekk na fa it ku ñu wax Moussa Seck te daan miraas ci télé bi ku ko mën fekk na nekk na fa it ak alaaji Abibu Sall bu dimis ka ca Saalum nekk na fa it Ahmad Saxiir bi nga xam ni moo sos daara ji nekk kokki ñooñu la nekkaloon ndar waaye dafa farlu woon ci njàngam ak jaamu yàllam <clears throat> ba nga xam ni Cheikh Abdul Aziz daana wax ni Taïb mooy suñu montar bu waxtu wi jub si bu ne tël mu ne aha waaj leen waxtu wi jot na Taïb ba nga nale mu nekk fi di jàng bokk na ci ñi ko doon jàngal Serigne Birahim Diop nga xam ne El Hadj moo ko jàngal. El Hadj Malick Sy moo jàngal Serigne Birahim Diop. mu jàngal El Hadj Tayib. El Tayib jàngal ma. yow mii nga jàngal ma. yow yow ma jàngal. kon. loolu mbokk yi eh, xam-xam bi bëriwul mais xam naa ne barke na ñu ngi ñaan loolu oustaz. Oh. loolu dinañ doy ci histoire léegi dama bëggoon xam te Alaye Tëb Diallo moom parce que da ñu bëri looy wax ci moom dafa dembe soo xoolee ay photom waaw euh, da ngay ruus a jàkkaaroog moom sax ci photo bi xëy na am na lu yàlla defoon ci moom. waaw am na lu yàlla defoon ci moom. Mhm. bu làkkee arab nga yaakaar ni arab la. Mhm. boo ko gisee nag da nga ah man kat juumuma. Mhm. ci arab la waxuma la xees waaye mën nañu ne dafa xonxoon moom alxaaji tayib ñu bari dañ daan wax ni arab la ñu bari loolu lañuy wax moom nag fa la jànge ndar waaye ba ma demee ci moom wan ko ne ko damay jàng wax ko téere yi ma jàng mu ne ma ndax jàng nga risaala ma ne ko déedéet waaye andi naa risaala bi papa doon jànge talaata ci guddi laa yegg ñu xëy suba teel taalibe yi di alarba ñu ne dañuy dem toolu sëriñ bi pour liggéey man it ma dal di génn ne leen damay ànd ak yéen pour dem ñu ne ma dee teel na di yow gan nga ma ne leen gannaaw yàgg-yàgg ci laa jëm daal naa commencé ma daal di ànd ak ñoom biñ demee ba bëccëg fekk bi ma paasee ba foofa fukki dërëm dong laa dese ci àdduna boo ban at la at la woon euh, 56. 56. waaw jërëjëf. ndax boobu sama ñaar fukki at yi matagul. Mhm, mhm. ba nu demee nag fukki dërëm boobu. Mhm. ma ne naa ko naa ko jënde dara sarax ko taalu yi. dese loxol kese. ma daal dem ca bitig ba jënd mbiskit andil ko sëriñ bi. bi may waaj a mu jox mu ñu seddale ko taalu yi. ca laa commencé risaala. risaala laa jëkk jàng ci moom bi risaala pare nag mu ne ma dangay ngay jàng naxwu ndax moo lay wax ban yi ngay jàng parce que xam na sa xel mu mel mm-hmm. mu ne ma jëlal naxwu yaa ngi yaa ngi war a commencé ajarooma mm-hmm. ma jàng ajarooma mm-hmm. mooy première téere wu grammaire bi ñu daan njëkk jàng yàlla dimbali ma nag dama ko mokkal comme Fatiha nga dëgg ci liraab yéeg yëpp waaw loolu dama koy dëggal ndax bi ñuy jàngal matière yi ñu gënoon a fort ñun waaw dañu daan concurrence kan moo gën a man grammaire moo nekkoon suñu ñoom Khalifa Sede la ñu ñoom Mouhamad Sis ñoom ñoom Ousmane Ousmane mu ndaw ma yàlla ko yàlla yërëm wallaay euh, ñoom Mouhamad Siis. waaw macha allah euh, loolu am na solo mais foofu dañuy tënk tuuti. waaw xam naa bu ñu topp histoire ba. Euh, dañuy tënk ci waxtu. waaw wax ma dund daara jooju. dafa métti woon ci yow. wala yomboon na parce que yox nga ma waxu tool. daara daara ju métti la. Mhm. parce que bi ñu waxee sëriñ ki ma àndaloon bi mu ne sëriñ bi kii suñu doomu ilimaan la dafa bëgg a jàng si. kooko ma fa jiitu woon. mu ne ko ndax wax nga ko li ne mu ne ko waaw mu ne ma di jàng bu baax dinga liggéey liggéey bu metti di nga jaamu yàlla waaye lekk bi bariwul tuuti la ma tontu kon ne ko kuy ut xam-xam doo war doo war a bañ loolu moo daal di ree moo tax bi ma commencé njàng mi soxlawu ma dara lu dul njàng soxlawu ma mbubb mu rafet soxlawu ma xaalis soxlawu ma dara lu dul rekk njàng mi incha allah ko defee nag ma jàng ba jeexal ajaruuma am na bunte bu ñuy wax maarifa maarifatu alaamatil iraabi kooku dala ci daan examen boo boo ci juumee benn baat doo continuer sa grammaire yàlla dimbali ma it mu ma laajee ma tontu yëpp mu am kontante ba téere ba jeexee mu ne ma mulxatul iraabi nga war a commencé mulhatul i'rab yi ma commencé di ko jàng waaye nag lu ma jàng yi dama koy tari dama koy mokkal. nga loolu am na solo oustaz. bi euh, jeex voilà nga mboolem fànnu xam-xam yi gis nañ ne. même man man naa seede. benn bés toog nga ak man. loolu dama koy sàcc tey comme secret oustaz xalifa fekkewul. waaw nga ne ma li ma jëlee Saalum. waaw joxe gu ma ko. waaw te ñoom xalifa ñoo ñuy raw. te ñun ñu ngi jàpp ne dañoo génnoon ñun. waaw kon xam-xam baa ngi fi yàlla na ko yàlla barkeel. yàlla bu yàlla wan suñu bopp ci loolu. dañ ko seede rek. loolu moo tax ma doy loolu parce que leer na ma ne bu ñu continué woon mën ngaa wax mbooleen xam-xam yoo fa jëlee. mel na ni góor googu balaa may wax bi mu fa jógee. loo continué di def góor googu marqué na la. waaw am lu mu bàyyi ci yow lu bëri. waaw mel na ni bi ngay dem am na tàggoo bi mu def ak yow. ndax sa farlu foofu. mel na ni tamit bi mu faatoo woyal nga ko. waaw def ko rasa. ñëw ci loolu ñu doog a dem waaw moom bi ma jàngalee ba mu pare dafa am lu Sénégal tudde woon dajale xam-xam boo ko masaan jàng téere wi boo ko masaan jàng dañ naan dajale nga loolu lañ daan ma doontoon xam-xam sax kenn mënu koo jeexal uhuh. ndax wa ma hawal ilma jamian ahadun uhuh. walaw yu maarisuhu alfa sanna mhm. nee na kenn mënul jeexal fànni xam-xam yépp doontoon am nga ci junni at di ko jàng waaye dafa am fànn yoo xam ne boo ko mosaan jàng ba jeexal ñu ne dajale nga fànni xam-xam yi ñuy jàngale Sénégal <laughs> yàlla dimbali woon na ma ma jaar ci loola doonte woon duma borom xam-xam it mhm. jaaroon naa it foofa bi ma jàngalee ba pare it ba defal ma tafsirul quran moo jàppal bés ne ma bés sàngam ngay ñibbi mu woo kilifaw dëkk ba yépp ci saal bi mu daan jàngalee mu toggal leen laax ba muy commencé wax